asalaamualeykum wa rahmatullahi wa <clears throat> mbokki darsu bi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen bal xaq di leen balu xaq di sàkku ci yéen ngeen bal nu xaq bu baax a baax di jël sunu nuyu di ko teg ci loxol directeur des programmes ak rais xaaji Mohamed Basir ñoo ngi laan nuyu di leen ziyaara tabarakallahu mu mel ni dañuy delsiwaat rek ci leson yooyu nga xam ne ñi ngi ko fas yéene di amal ci ay bés bu ne ci talaata ju ne incha allahu ci téere bu màgg bu yéema bu doy waar boobu ñoo wax xidaasu zahab fi siirati xayril arab nga xam ne ki ka def mooy sëriñ bu yéeme sëriñ bu kéemaane bu doy waar ba di nit yàlla bu màgg ba di Cheikhul Hadj Malick Sy hmm, jaadu na nag tuuti bala ñuy ñëw ci téere bi ñu junj tuuti rekk ci Cheikhul Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu xam ne mi ngi tuddoon Cheikhul Hadj Malick bàyyi ko ci ñaari waajur yu tedd kenn ki di maam Ousmane Sy ak maam Fawad Wele juddoo dëkk boobu ñoo wax gaaya ci gàttal lii ñuy fas yéene wax ne moo ko wax ci rasulullahi sallallahu alayhi wa lii ñu lay bëgg a nettali suñ la ko nettalee moo ko wax ci Moustapha wa des na kaa mën a nangu xam ne jaar na fu mu war a jaar yépp nga xam ne dafa doon xam-xam maam Ousmane si mi waajuram ba muy bëgg a génn àdduna téeréem ya daf ka denc lu ne sayaati malikun maanaa ma maanaa ki nga xam ne moom moom téere yi kon nga gis na si xaaj Malick fekk na fi ay tiire doon nekk ci waajuram wu góor ak yi nga xam ne moo ko rayante ba amal ko boppam kon xam-xam moom lu mu la lu mu tabaarakallaahu jàng ko ba am ko la ba mu jaaree fa mu war a jaar yépp jàng fu la mu war a jàng yëpp ñëw ñett mooy doxalin yi nga xam ne méthode bi nga xam ne ci la dem ba maîtriser Sénégal lépp mën a wax na tegu ci loxoom mooy wëndeelu gim daan wëndeelu léeg-léeg di dem ci dëkk yi di gisanteeg mag ña fa ci wëndeelu boobu ci la xamante Cheikh Mar Diop benn nga xam ne ba aji màkk ga àndoon ci wëndeelu boobu ci la xamante woon ak maam maa maam benn bi nga xamoon ba nekkoon boori njaarnde ci wëndeelu boobu mu doon def ci la xamanteeg maam alxaaji rawaan ngom bu paal ci wëndeelu boobu la xewee woon ah, ci wëndeelu boobu ci wëndeelu boobu la xew la xamante woon ak góor googu ñuy wax ahmad góor a jóob borom jàkkaay min bar fële ca ndar ci wëndeelu boobu la xamante woon ak tabarakallahu alaaji ahmad baro njigéen ah ak ñeneen ñu mel ni ki ñoom ci wëndeelu boobu daal la xamanteeg ñu bëree bëree bëri tax na loolu jàppandal ab liggéeyam bu baax a baax a baax a baax a baax kon mooy benn jumtuwaay bu mu doon woote ñaareel ba mooy jumtuwaay yi nga xam ne doon na ci woote fii ci senegal ak biti Sénégal mooy doon gëstu xam-xam te xam-xam ba daanaka yaxal di ci taalif ay taalif yu am doole yu ama am doole sax nag te loolu itam mooy sababu tabaarakallah beneen jumtuwaay bi nga xam ne itam daanaka jëfandikoo pour lawal woote bi mooy di jàngal nit ñi boole booleeg di leen yar ci wàllu yàlla di li jàngal di yare di jàngale di yare bañ a jàngale kese te bañ a yare wala di yare kese te jàngale oo moom dafa boole ñaar yi jàngale ak yare ba nga xam sa borom na nemm na ner kooku mooy Cheikhul Hadj Malick ci gàttal mooy sëriñ bi nga xam ne boo am na fukki mbir yoo xam ne da ce dëppoo ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon kii luñ la wax ne wax na ko ci rasulullahi rek xel war na ko mën a nangu luñ la wax ne wax na ko ci rasulullahi kel war na ko mën a nangu ndax fukki mbir yooyu ñu dëppoo te fukki mbir yi dina leer ci yow mooy boo xoolee mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gane àdduna ganewaale àdduna ak jirim maanaa gisul waajuram wu góor Cheikhul Hadj Malick itam boo xoolee maam Ousmane si moog Cheikhul Hadj Malick fekkante wuñ ci kaw suuf benn ngoog de ñaareel ba mooy nuru goo xam ne nuru na ko sallallahu alayhi wa mooy yenent bi mi ngi gane àdduna ci jamonoy atum ñaye di atum fitna ba nga xam ne moom la abraxa doon jéem a dugal ci waa màkka tiitaange loolu Cheikhul Xaaj Malik ba muy gane si àdduna fekk ne colonial yi ci seen bopp ñoom itam ñoo ngi jéeme occupé senegal taal fitna wu réeréy ca boori waala pour lan yilif Sénégal ba nit ñëpp jaax la ci jamono boobu période boobu la Cheikhul Xaaj Malik gane àdduna ñaara ngoog ñetteel bi ci nga xam ne nuroo naka ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yëpp la ko indil ci biir xilaas bi yi ci comme ni mu ko waxee ci yonent bi waaye dañuy bañ mu jël temps comme daañu ci àggal incha allah nga comprendre ko noonu ñetteel bi mooy nga xam ne nuroo naka ak sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi dafa amoon ndigalal génn màkkatal mukarram dem madinatul munawwara ngir lan rawale diinam ci ndigalal yàlla Cheikhul Xaaj Maali itam ah. loolu moo ko gàddaayloo njaar ne mu jëm Tiwaawan ngir gën a rawale eh, ak gën a mucc ci bandi yi di colonial yi colon yi kon foofu nuroo nañu fa ñeenteel bi nga xam ne nuroo nañu ko moog rasulullahi yenent yi ba mu gàddaayee la mu njëkk a lijjanti mooy jàkkaam ju tedd ja fañ ko war a tabax ba lijjanti ko ba tabax ko Cheikhul Xaaj Malik ba mu ñëwee Tiwaan ba gàddaay moom itam ba dal la mu njëkk a lijjanti mooy zawiyaam boobule la njëkk a lijjanti su ko juróomeel bi nga xam ne nuroo nañ ko mook sallallahu alayhi wa sallam yenent bi Xadija moo dox ngoro digganteem ak moom pour yenent bi takk ko waaye Cheikhul Xaaj Malik itam maam Roqaye Njaay itam moo ko gisal boppam mu nekkoon njàngaan boo xam ne dafa daan jël si añ maam Roqay Njaay gis ko bëggal ko boppam soppal ko boppam te yàlla tax mu dox ca wax ca ba Cheikhul Hadj Malick nangu wax ko ka nga xam ne moo nekkoon ay njaatigéem ñu doxal ko ci loola kon li dal Khadija ci rasulullahi moo dal maam Roqay Njaay ci Cheikhul Hadj Malick kon nuroo nañu foofu juróom-benneel bi nga xam ne nuroo na ko ak Cheikhul Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu dafa jël ay doomam yu jigéen may ko lenn ci ay saxaabaam Seydina Ousmane amoon na ci ñaar Seyda Aliin amoon na ca kenn xoolal Cheikh El Hadj Maalik radiyallahu taala anhu doomam ju jigéen jël na ko may ko ay taalibeem kenn ki alxaaji Malick Sarr la ah ak doomam jigéen ju may alxaaji Yuusufa Jóob bëri na bëri na ñoom sëriñ Xaadeeg ñoo ñëpp bëri na bëri na bëri na na tabarakallah juróom ba nga xam ne nuróonuñu ko ñoom ñaar mooy rasulullahi mi ngi faatu ci waxtu boori ineer ñi ngi ko denc ci guddik àllarba Cheikhul Xaaj Malik mi ngi faatu ci waxtu une ci bisu talaata waaye ñi ngi ko denc ci guddik àllarba ko nuroo nañ ci guddi àllarba ga hmm? kon ki <laughs> lii mu wax ci rasulullahi bu ko waxee laa xarwa de tabarakallahu kenn ku ne sa barab bañ la denc nuroo naag keneen ki fañu ko denc boo xoolee rasulullahi sallallahu alayhi fa ko dencoon ca pantre jàkk ji jàkk ji dafa màgg ba dugg ci biiram Cheikhul Hadj Malick ci pantre bi lañ ko dencoon moom it ci yàkkalik jàkk ji zawiya bi moo tax mu nekk foofu ci digg bi kon nuróo nañ ko foofu hmm. nee na juróom-ñeenteel ba nag mooy yenent yi ba mu faatoo ñi nga xam ne ñoo doon def marsiya ci moom mooy ay dangoam ku demee ne Xasan ibnu Sabit defal na ko marsiya bu gudd gudd gudd di ko jooy ca waya Seyna Seyxul Xaaj Malik moom itam ba mu faatoo Sëriñ Aline Guèye defal na ko marsiya bu gudd gudd moom yow ala yawmuhu yawmu thulasa bi zuhrihi wa ba xarru shamsi nahwa tabarrudi comme ni nga xamee kon boobu mooy juróom-ñeenteel bi nga xam ne nuru na ko sallallahu alayhi fukkeel bi mooy rasulullahi xalifaam bu njëkk mi ngi tudd Seyna Abubakar maamu Seyna Abubakar mi ngi tudd te Seydina Aboubacar it mi ngi faatu bisu altine waaye Cheikhul Hadj nuru gim ko ci nuru itam xalifaam bu njëkk gis nga ko xalifaam bu njëkk mu ngi tudd Seydina Serigne Babacar si radiyallahu taala anhu ñetteelu maamam it mi ngi tudd maam Ousmane wala maamam mi ngi tudd maam Ousmane comme ni nga xamee ne maamu Seydina Aboubacar mi ngi tudd maam Ousmane te Serigne Babacar it mi ngi faatu bisu altine ah kee itam mi ngi faatu bisu altine tabaarakallahu gi nuroog rasulullahi ci yii moo fas yéene wax ak ñun ci téere bu yéeme bu doy waar boobu la incha allahu taala ñu topp ko benn par benn incha allah kon tabaarakallahu euh, téere bi mi ngoog dañuy wax ne lii sababu mu taalif ko donte am nañu wuute ci sabab bi ci ban téere ak itam man mag la ci mag ñim doon waxanteek ba gis ne sabqul lisaan wala sabqul qalam dal na téere boobu wala borom téere boobu ba mu xaw a jaawale li siiw daal mooy xurratul absaar lañu wax nekkoon na di ko jàngal góor gi Ahmad Karim Gueye ñenn ñi ne Abdul Karim Gueye dégg nga ñenn ñi dañu wax ne nuurul absaar la moom la doon jàngal Abdul Karim Gueye ñi ne Ahmad Karim Gueye ku mu ci doon rek baax na waaye daal buy nuurul absaar benn masala la te masala bi ñëw ci nurul absaar ba waral góor gi wax bu fekkee boobu la baax na masala boobu it moo ñëw ci xurutul absaar bu fekkee boobu la it ba tey it baax na ba tey it baax na ba mu koy jàngale ba àgg ci gàtt yenent bi sallallahu alayhi wa sallam gis ne bu fekkee ne da ngaa jàpp nuurul absaar baax na bu fekkee da jàpp xuratul absaar baax na ba mu koy jàngale ba àgg ci gàtt yenent bi mu jël benn gàtt jox ko ñaari tur defe ne gàtt bi maanaam ñaari gàtt la dégg nga comme ni ñuy waxee Babacar ak Mbay te fekk benn tur la rek muy gàtt yoo xam ne yenent bi sallallahu alayhi dafa jago woon di naan seen soow ba góor gi ñëwee ba foofu nag gis ne borom téere bi da def mu nekk ñaari gàtt te benn la moom ci la njëkk a ne bi gawsatin duiyat aw gaysatun yamanun shaatun lahu xamarun uddat fala tahimi way ci ay quelque bayit nag ba mu ci waaye ay quelque bayit na da ah lii da xam naa ku ko defoon téere mu jekk de ci la commencé nag téere bi moom commencé ko ca bopp ba defu ci xasal comme yem daan def ci yeneen tiireem ya déedéet comme la xewoon ci nun yëba walla mu xew ci xew ci xew ci euh, lële bële euh, laami yëba wala abada buruux ba déedéet kii moom dafa ñëw rek sant yàlla fas yéene wax nag cosaanu leeru sallallahu alayhi wa sallam li ko ci temps may mi ngi liggéey itam ci diggante ñaar fukki fan ak benn am na ñu ne sax manqué na ñaar fukki fan ak benn kon loolu ba tey itam téere ba yàggul mi ngi ko def it ci junni bayti ak juróom fukk ak juróom donte nag léeg-léeg nit ñi wuute ci limu bayti yi am ñu ne déedéet junni bayti la ak juróom benn fukk ak ñaar waaye loolu la koy indi léeg-léeg boo xoolee mooy da ci am xilaas yoo xam ne yenn bayti dañu koy tëpp loolu mooy indi xam naa cóol-cóoli wàññi wàññi boobu de moom nga déggoon am benn waykat bu naan xilaalu zahabukumu abyaatu hanasun xamsun wa xamsuna baada alfin ka nujumi am na benn waykat bu waxoon loolu waaye am ñu jàpp ne ba tey ëpp na loolu mooy mille soixante deux bayti la jamono ba mu ñëwee Tiwaawan nag la ko liggéey tabaarakallaahu ca gàmmu yu njëkk yaa njëkk ya def ko nag mu nekk téere boo xam ne téere bu yéeme yéeme la doy waar lool ba daana wax ne ku fanaan moom nga giñ na maag rasulullahi ñoo fanaana ndoo doo kafaara ndax daf ko wër na lépp rasulullahi mi ngi ci mu ndar ka képp ko ci ndar képp wu doy waar wu yéeme lool lool lool lool lool mu taalif ko daal kon mën nañ la cee dénk loolu le nga gàdduwaale ko nekk téere bu doy waar lool yéeme lool moom <laughs> bu téeree rek da nga xam ne tabaarakallaahu mu commencé ci bopp téere bi nag di sant sunu borom subhanahu wa taala ci li nga xam ne moom la ko defal waaye alfaslu al moom lim ciy jàngale mooy fii manshai xalqihi ci sosu bindu leeru sallallahu alayhi wa daal lay jàngale ci faslu bu njëkk bi dégg nga def ko it mu nekk fan fanweeri buntu comme ni nga ko xamee hmm, ma ngoog su waxee nag dem ba ci biir danga nga yëg ne <laughs> eh, xeeti xam-xam yëpp ay feeñ ci téere bi bu fekkee xam nga ci aslëf donte naqari naa xam lool nag ba fa dayee naqari xam yam waaw kon ñun moom suñ ciy wax itam dañ ciy wax lu tol ni nanu xamee rek wala nanu déggee am nañu ñu ci ëpp dégg fuuf gën ñu kaa maîtriser fuuf gën ñu kaa xam fuuf ci côté yëpp nag waaye <coughs> yàlla ñu na nattoo eh. mu ne alhamdulillahi zil ijaadi wal qidami mu middinaa bi wujudil badri zil qaadami ma ngoog góor gi nee na booy déglu alaaji ahmad siise pir da nga dégg mu ne cheikhul xaaj mali bu ko daan firi ci alhamdu gi dafa wax ne ñoo ngee sant yàlla mi fi indi ñëpp te kenn xamul lu ko fi indi tubaab yi fi gën a jonge ñoo fi gën a bari xam-xam ñoo fi gën a ñoo fi gën a ñoo fi gën lu ne jàng nañ ko lu ne lañ bët nañ ko waaye ba léegi leeraguñ lu fi indi yàlla de sunu borom subhanahu wa taala ba léegi leeralaguñ lu ko fi indi hmm? te loolu war naa mel ni bëccëg te yaakaar naa loolu lu gaaw mel ni bëccëg de kon mbooleem xaaji cant yi wala xeeti cant yëpp yëpp yëpp yëpp lillaahi aji sax la ñeel yàlla lillaahi yàlla dong moo ko moom nga la nga ne lillaahi yàlla dong moo ko jagoo comme xeeti cant yi nga xam rek bu jugee ci yàlla delluwaat ci yàlla bu jugee ci yàlla ñëw ci nit bu jugee ci nit jëm ci yàlla ak bi nga xam ne tabaarakallahu moo jugee ci nit jëm ci nit yépp rek ci yàlla subhanahu wa taala lay dellu boo xoolee itam alhamdu boo xoolee juróomi xaraf la tënk na it ponki lislam yi yépp yàlla dong nga moom mooy liif gi shahadatu an laa ilaha illallah laam gi gis nga ko boo xoolee ah saabu ramadan boo xool da ko gis léeg mu nekk fanweer xaaji boo xoolee huit la boo xoolee innama sadaqaatu day dugg foofu miim gi mooy salawaatul xamsa yeeg rawaati yi ca tegu daal gi mooy maanaa arkaanul xajj rek mu daal di jeex tabaarakallahu kon boo xoolee ponki lislaam yëpp yëpp lillahi yàlla dong ko jagoo lillahi yàlla dong moo ko moom kan mooy yàlla mu ne zil ijaadi yàlla mi boromuk amal dañu wax ni xamdu moom doonte ñaar la mutlaq am na muqayyad am na waaye dafa gënal borom xam-xam yi nag xamdu gi nekk xamdu muqayyad ndax toujours booy jàng alquran da ngay gis ne yenent yi seen cant la ci gën a bëri xamdu muqayyad lay doon hmm? alhamdulillahi alladi lam yattaqis da walam yakun lahu sharikun fi lmulk gis loo loolu ah? alhamdulillahi alladi najjana min alqawmi zalimin gis loo loolu alhamdulillahi alladi wahaba li ala alkibari ismail moomu gis loo loolu ah wa qaala alhamdulillahi alladi faddalana gis loo loolu kon boo xoolee xamdu googu mooy cant goo xam ne dan nga tënk lu tax nga ko mooy maa ngi sant yàlla ngir lim may ma añ bi añ bi maa ngi koy sant ci añ bi di ko sant ci ataaya ji ah di ko sant ci téléphone bi di ko sant ci connexion bi di ko sant si ci suukar si ma may lenn lu ne nga tudd xéewal ga moo tax mu ne zil ijaad yàlla mi boromuk amal moo gënal borom xam-xam yi nag xamdu mutlak mooy xamdu goo xam dañ ko itlaax noonu rek maa ngi sant yàlla nii rek alhamdulilahi rabbil alamin ah tabaarakallah waaye limi lim la tabaarakallah itam wàññiwul dara de te dañuy wax ne an niamatu niamataani niamatul ijaad ak niamatul imdaad ijaad bi mooy lan mooy al izhaaru min al ghaybi ila aalami al shahaada yooyu yëpp ci ijaat gi la bokk mooy jëlee gim la jëlee ci ñàkkoon a feeñ jëmale ci nga mën a feeñ jëlee la ci aalamul amr yóbbu la ci aalamul xalq bàyyi ko la ci aalamul arwaax yóbbu la ci aalamul asbaax aalamul qadr jëm la ci aalamul xikma nga jógee ci aalamul taqdir jëm ci aalamul takwin yii yëpp ay xeeti xéewal la moo tax mu ne zil ijaadi yàlla mi boromuk amal dégg nga ko bu baax wal qidami ak yàlla mi nga xam ne mooy aji jëkk yàlla moom mooy kan mu ne yàlla moom mu mit dinaa mooy aji tëbb suñu jox ñu lu ñuy lekk lu ñuy sol lu ñuy naan lu ñuy war fu dëkk ah téléphone connexion téere <laughs> birket yëpp mu mit dinaa te yëpp nag mi ngi ko defee bi wujudul barri ci sababu amuk weer wi mooy sababu amuk yenant bi zil qidami yenent bay borom ak jiitu yàllaa fi njëkk yenent bee fi jiitu tabaarakallaahu yàlla moomu laay sant badr nag su ko waxee ah waaw <laughs> xeenu taxaw noonu waaye dafa mel ne taxawee ngay jot de xëy na nu bàyyi ko noonu allah euh, kon ma kon bi wujudil badri badr nag suñ ko waxee tabaarakallaahu mooy weer woo xam ne weeru fukki fan la ak ñenent moom la ñuy wax albadr waaw kay ñu ne nag tuddee nañ ko badr lan moo tax ñu tuddee ko badr ngir gaaw goo xam ne da kay gaawantu euh, bala euh, tabaarakallaahu di fi fekkanteeg jant ak yooyu daal am na nu déggee noonu kon ñoo ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ñu amal ba pare amalal ñu comme la góor gi bu saax doon wax boole ñeeg lam ñu amal ame ñu <laughs> tabarakallahu kenn mësul dégg loolu summa salaatu wa taslimun yafuqu ala miskin wa randin ala dil fadli wal qadami gis nga xadami bu njëkk bi nga bàyyi xel boobu moo jiitu waaw kay Euh, dana ci ñëwaat ci beneen ñetteel nag ndax bu ko indi woon ñetti yoon yu tegloo yëpp bokk benn maana kooku mën na am lu ñu ko jamee tuuti mooy nga baamu benn baat avant ngay am juróom-ñaari bayit te baat ba nekk baat bu mujj ca way wa nga baamu ko euh, ñetti juróom-ñaari euh, nga baamu ko avant ngay am juróom-ñaari bayit ci jeexantalu way te yépp bokk lu ñuy firi ah dañ naan nag yow nag hmm, des nga kalangaatu tuuti dañ koy tuddee uyubul xaafiya su ñuy jàng loolu xam nañ li may wax da nga wax bu baax su masalaatu topp xéewal wala topp jullig yàlla wa taslimun ak ak sëlmalam ak ak jàmmalam ak ak wóoluloom daañu kawe mooy salaatu ak salaam boo xam ne danañu kawe gën a yëkkatiku gën a foor ala miskin ci gëtt ak misk misk nag benn xeetu gëtt la boo xam ne dañu wax ni toujours mi ngi bàyyikoo ci dereti kéwél mu nekk xet goo xam ne xet gu neex a neex la loola la muy kawe kawe kawe ak la xet gay am am odeur bi am am am doole salaatu ak salaam boo xam ne yàlla na gën a kawe loolu wa randin ak gëttëg rand rand itam genn garab gu ndaw la goo xam ne gu neex xet la goo xam ne dañ ko daan faral di soccoo xet googu nga xam ne am na ko ba nit ñi léeg-léeg ñu jël ko jël ba di ko def cuuraay ak xet gam lay jox nee na salaatu ak salaam boo xam ne yal na gën a kawe xet ci rand ala dil yal na nekk ci borom ngëneel li borom mbaax gi te mooy rasulullahi wal xadami ak borom teraanga yi xadam foofu teraanga lay tekki borom teraanga yu mag yi te kooku du kenn ku dul sallallahu alayhi wa sallam ala dil fadli wal wa alihi almuhtadina alqirati alkurama almutamina waaye gis nga xam nga lim uufa tax sirati almuxtari walqadami lim uuf moo tax nga nga nga nekk cappit sànni fële nee na salaatu ak salaam boo xam ne yàlla bum dañ di nekk wa alihi ak i mooy sahabaam yeeg ak képp gëm almuhtadina ñay way gindeeku tey gindee jub tey jubale gannaaw ba ñu gisanteeg rasulullahi jonjog moom alxiirati ña di tànneef ci seen jamono ak beneen jamono bu dul seen jamono ku dul ñoom ñoo la gën ndax yonent bi moo ne yàlla moo ma tànnal samay saxaaba alkurama ñay way tedd lool baax lool ba fa baax yam ñooñooy ñan mu ne al mutamina siratil muxtaari ñooñu mooy ñi nga xam ne ñooy aji roy si melokaani ku ñu tànn ki wala jikkoy ku ñu tànn ki wala doxal ku ñu ki doxalinu ku ñu tànn ki wal xadami ak jeexintalam jeexintal yooyu nag moo yóbbe woon ku demee ni Abdullahi ibnu Omar moom fu rasulullahi mësa jaar dallu ci tukki la su agsee ci garab ga Moustapha dallu woon yeewoon fa gineem dana fa dallu pour roy ko rek su agsee fu mu àggoon suuf tuur ndox dana ko def lum fu mu àggoon fu mu woon nelaw dana ko def kon ñi nga xam ne ñooy rey jikkoom waaye romb nañ jikko yi waaye jeexintal yi sax dañ koy topp fu mu toppoon ñu topp fa salaatu wa salaam yàlla bu mu dañ di nekk ci ñoom tabaarakallahu dañu taxawoon ci salaatu bi nga xam ne doon na salaatu ci rasulullahi ak waa ba tolloon ci ma araada raadu wal warqaau tanxibu min hadidiha wa jara damcun min alxolami góor gi doon wax nag salaatu salaam boo xam ne yàlla bu mu dañ ci yenent bi feeg dënnu mi ngi yëngatu wala feeg malaayka moomu ñoo wax raad mi ngi yëngal dënnu ñu wax ne malaayka mi gën a tuuti ci malaayka yi la téere yi wax feeg nit a ngi dégg dënn gu yëngu moo xam dënn gi ci bopp ak kàttan lañ ko mën di yëngalee fu ko yàlla di mën di jaar lay yëngatu ga feeg nit a ngaa dégg salaatu wasalaam yàlla bu mu dañ di nekk ci Moustapha muy wax na itam feeg pitaxum póol ma ngay jooy di sab ca seen mbokkam picc ma laboon wala ma deewoon ngir mar ci jamono yënt yàlla nuux salaatoog wasalaam yàlla bum dañ di nekk ci Moustapha ñenn ñi ne benn rëbbukat nag moo rëbboon picc ma ba mu ko rëbbee tabaarakallahu picc yëpp moom lañuy jooy am ñu wax loolu waaye li mu bëgg wax rek mooy fee guddeeg ba ci gé am salaatoog wasalaam yàlla bu mu dañ di nekk ci rasulillahi jàngoon nga ko moo tax mu ne ma araada fi yéeg mi ngee dënnu fi yéeg mi ngee dënnu yëngal araadu malaayka moomu ñoo wax raadu wala araadu dënnu gi wal warkaaw ak pitaxum póol tan xibu fi yéeg mi ngee sab di jooy min hadiliha ca piccam ba laboon wala ca cuujam ba laboon ca tuufaanu yént yàlla noox ba salaatoog wasalaam yàlla bum dañ di nekk ci Moustapha dégg nga wa jaraa fieg mi ngee daw fieg mi ngee walangaan dam un rongañ wa jaraa fieg mi ngee daw dam un cooska minal xalami ci xalimba fieg nit a ngee jël bik di sëpp walla xalimba di sëppu ci ANCAR moo xam nu mën di bindee fii ak nit a ngi bind daal ak façon bindin buñ bindee rek salaatu wa salaam yàlla bu mu dañ di nekk ci Moustapha ne wa innahu id arada allahu nashatana abana min nuurihi nuura nabil alami léegi nag mu gën a ñooxu nag xaqiqatul muhammadiya bi nga xam ne la ca Cheikh Sidi Ahmad Tidiane Serif wax moom saariyatun fi jamici zawati lwujudi min kulli ma jarat almachiatu bi ixrajihi min aladami ila alwujudi wa min kulli ma jarat almachiatu bi ibqaihi fi aladam fa huwa ruuxu saari fi alaalam mawjuduhu wa maadumuhu kenn mësul dégg loolu kon Cheikhul Xaaj Maalik nee na xam nga yàlla ba mu bëggee amal li mu bëgg a amal dafa dindi ci leeram gi li nga xam ne nangu na ak facc ak li nga xam ne leeram gi dafa am loo xam ne nangu na ak facc mooy teqalikook moom am loo xam ne nanguwul ak facc mu indi woon fi coow lu rëy nag ci jamono sëriñ Babacar si radiyallahu taala kenn ku ne am jot di bëgg ci joxoñ Seydul Xaaj Malik dafa ne daal dara bu ci dara jugee dafa manqué ba coow li ak ci Serigne Babacar si radiyallahu taala anhu comme ni ñu waxee rek comme mën na tudd mën na tabaski ah mu lijjanti mbir mi moom ca jamonoom ba mu ne koc na kororoj ci la waxee woon wayam yu siiw yooyu nga xam ko te mooy nuuru nabi habibillahi safwatihi min nuuri rabbi bila raybin wala tuhami fal qawlu aw la ihtimalan sabitan alana bi xaq shaafiina al musra ila al xakami nooy def mu ne fan fi ixtimaalan li nuurin saabiqin kaana maxluqan waasitan fa zaaka lam yadumi ndax ñooñe booba dafa am borom xam-xam yi gëmloon nit ñi ne am na fi geneen leer goo xam ne jiitu na fi leeru rasulullahi ci xaqiqatul muhammadiya dafa am ñu doxalee noonu sëriñ Babacar tontu leen nag ne loolu amul genn leer daal jiitu fi leeru wa rasulullahi sallallahu alayhi wa loolu la doon tontu na ñi wax ne am na genn leer gi fi jiitu ci mbindeef leer yu yonent bi di xaqiqatul muhammadiya amul waaw mu nekk nag lu naqaree dégg lool lool lool lool lool lool la góor gi bëgg leeral fii doonte yonent bi sallallahu alayhi leeral na ko nag ndax mbindeef yépp moom ñi ngi bàyyi ko ci leeru rasulullahi sallallahu alayhi wasallam waaye yàlla moom comme ni ko cheikh waxee rek ne fa wujudul akwaani kulluha tum bi wujudihi sallallahu alayhi wasallam wujudan wa ifadatan waaw nee na amu mbindeef yépp mi ngi aju ci amug rasulillahi am geeg ba buggi ndax fa innahu huwa sallallahu alayhi wasallam maa xalaqahu moom yàlla illa min ajli zatihi l aliya almuazzamati almuqaddasa fa innahu maa xalaqahu min ajli cheyin duna alxaqi waaw kon bu boobaa la cay mujj seex ne wa yatawaqafu wujuduhu ala wujudihi <laughs> ñu ngi jégalu ñu ngi saaraan ci lu ñu ngi jégalu bu baax a baax waaye daal nekk na géej goo xam ne géej gu naqaree leeral la yàlla daal ba mu bëggee bind génne na ci leeram yi leer goo xam ne nangu na facc nangu na bàyyi ko ci moom mu bind ci xaqiqatul muhammadiya lépp nag mi ngi bàyyi ko ci sallallahu alayhi ndax moom yenent bi lépp ci moom la bàyyi ko lawlaa wujuduhu sallallahu alayhi wa sallam maakaana wujudun li wujudin aslan min gayril xaqi subhanahu wa taala cheikh nee na bu am gu rasulillahi gi aji am du am ci amam googu kon moom la la amam existé moo tax ñu ko daan tuddee abul arwaax moom sallallahu alayhi wa ngir jeexantal goo xam ne tabarakallahu ah, jeexantal na ko waaw ni nga xamee ne ah, yonti yàlla aadama moom la ñuy tuddee abul bashar noonu it la ñuy tuddee yeneen ti mu nekk abul arwaax noonu itam la xaqiqatul ye nekkee ummul akwaani wa asluha waaye daal coppati na ci boppam coppati bu kenn mënul melal comme la góor gi Ibou Sakho doon wax radiyallahu taala anhu <laughs> eh, idaafa googu nag ci min nuurihi nga bàyyi xel ne idaafatu tasrif yi dong la nag idaafay tasrif yi xaqiqatul muhammadiya lépp dafa tax ñu ci biiram lépp lépp lépp dafa taxaw ci biiram lu am lu amul lu yëg ak lu yëgul te lépp a ngi woon ci biir xaqiqatul muhammadiya lépp nag gannaaw gi dafee waaw lépp rek lu amoon fekke na amoon na bu yàgg loo mu feeñ rek amoon na bu yàgg yàgg bul jàpp ne mi ngi door a am de déedéet tabaarakallaahu la borom libris doon wax rek naan laa sayidul wujudi salaa sallam maa zahara sirrun min laa huwa maata fajra aynun min al kon ndox yi am mooma wala jëra nahru min al anhaari fa inna nuurahu salaa sallam yaa waladi yafuuxu fi chahri mars salaasa marratin nee na leeru yenent bi dana bonni ñetti yoon ci weeru mars bonni googu muy bonni nag mooy tabbi ci meññent yeeg xeet yooyu yëpp tabarakallahu yooyu daal xumb na tabarakallahu am na téere bu ñuy wax xaqiqatul muhammad yi yusuf nabaadi moo ko defar téere ba noonu la toll dem na juróom-ñaari téeméeri paas téere boobu moom la muy wax ci xaqiqatul muhammad yi moom tabaarakallaahu kenn mësu koo dégg kon daal ngeen dégg rek ne ci gàttal daal yàlla daal ah lañ waxoon ci xadis ba rek xalaxtuka min ajli wa xalaxtul xalqa min ajlika donte min baabil musaaka la nag Haaj Maalik wa innahu li am ci réseaux sociaux yi wa innahu li ñuy dégg ci rajo yi wa innahu li xew ci télé yi ak li xew ci Sénégal ñu ne fi lu xew ndax damiru sa nu la jëmul fenn mu ne abaana feeñal na ñu ne ko si lu mu feeñal mu ne nuuran nabi leera ku ñu yëkkati kii darajaam tiim daraja yëpp alalami kay darapo nga ne fan la jële leeram googu mu ne min nuuri yi bàyyi koo ca leeru boppam ngoom yàlla ci leer gi nangoo facc nag la ñu wax idaafa bi tasrif yi ndax al anwaar la wax xam nga boo xoolee lu demee ni ki beneen téere ba ne moo xaw ma lanwaarul muhammad yi la xaw ma wala beneen téere bañ ko jukkee di mawaahib da nga dégg mu ne lama taallaqat iradatul xaq bi ijaadi xalqihi ba nga xamee ne bëgg bëgg yàlla aju na ci amal mbindeef yi ci ak nattale seen wërsëg gi rek abrasa xaqiqatal muhammadiya min anwaari samadi gis nga lan waar foofu da kaa jamoo waaw kay fii xadaratil ahadiya kay foofu la góor gi tànkay nag départ ak ñoom foofu euh, di wax wax ju xóot joojule euh. donte ne lépp mi ngi taxañu ci xaqiqatul muhammadiya dégg nga kon ba nga xamee ne namm naa amal namm naa amal moom yàlla nas atanaa sos suñu mooy amal ñu ñu nekk ay nit amal lépp lu mu bëgg a amal ci kaw suuf la dindi ci leeram googu leeru yenant bi te yenent bi jàngale na ko ne lépp ci xaqiqatul muhammadiya lay junju xadis boobu muy jàngale lool dafay junju xaqiqatul muhammadiya rek maanaa xam nga xam nga jaabir mës na ko laaj na ko lan la yàlla njëkk a bind wala ko laaj lan la yàlla njëkk bind mu ne ko li yàlla njëkk a bind de mooy sa leeru yenent bi summa xalaqa minhu kulla xayrin wa xalaqa baadahu kulla charrin okay lim ci njëkk bind mooy lépp luy xeetu mbaax xeetu yiw gannaaw bind ci lépp luy xeetu safaan leer googu yàlla saxal ko ci maqaamul qurb fukki junni ak ak ñaar def ko ñeenti xaaj xaaj bu njëkk mu bind ci aras mu feeñ jëmmi xam nga ko xamul loolu ñuy wax ndawal mosoo ko gis xamuloo ko day mel ni ni muy taxañoo ci biir xar rek su ne ci xar la génnee doo ko gëm waaye ko xamoon xar moom du la jaaxal kon yi xew yëpp noonu rek la mel moo tax mu ne mu daal di bind aras bind kursi yu ci beneen xaaj ba ak ñi nga xam ne ñoo yenu aras ak ñoo yenu kursi yu xaaju ñeenteel ba mu xaajaat ko ñeenti kaaj saxal ko ci maqaamul xubb mooy place sopp yàlla fukki junni at ak ñaar def ko ñeenti xaaj xaaj bu njëkk mu bind ci loolu ñuy wax alqalam beneen mu bind ci loolu ñuy wax al ruux beneen bi loolu ñuy wax aljanna mu xaajaat xaaju ñeenteel ba saxal ko ci maqaamul xawf mooy palaasu ragal yàlla fukki junni at ak ñaar xaajaat ko ñeenti kaaj xaaj bu njëkk mu bind ci malaayka yi beneen bu mu bind ci jant beneen bu mu bind ci weer beneen bu mu bind ci weer yeeg biddi kon xaaju ñeenteel ba ñeenteel ba mu xaajaat ko ñeenti kaaj saxal ko ci maqaamul raja saxal ko foofu fukki junni at ak ñaar xaajaat ko ñeenti xaaj xaaj bu njëkk mu bind ci loolu ñuy wax xel beneen xaaj bu mu bind ci loolu ñuy wax sago ak xam beneen xaaj ba mu bind ci loolu ñuy wax ak dëppale ak ak musal mu jëlaat beneen xaaj ba saxal ko ci makaamul xayaa fukki junni at ak ñaar foofu it nekk na fa sunu borom xool ko xoolin woo xam ne moom leer googu leer ga ñàkk façon yi woo xam ne nekk na cent vint quatre mille tokk-tokki ñakk ci la ruuxu yenent yi bàyyi ko cent vingt quatre mille yëpp yàlla jëlaat ruuxu yenent yooyu mu nokki la waat leen ruux yëpp nokki waat ci li ñu bindee arwaahul awliyaa yi ak arwaahul suhadaa ak ñi nga xam na ñoo topp yàlla ci jullit ñi ba yowmal qiyaama ci la yenent bi tege woon na nag fal arsu wal kursiyu min nuuri wal kurubiyuna wa ruuxaaniyun min al malaikati min nuuri wa malaikatu samawati sab min nuuri wal jannatu ma fiha min annaimi min nuuri wa samsu wal qamaru wal kawaakibi min nuuri wal aqlu wal ilmu wa tawfiqu min nuuri wa arwaahul ambiya wa rusulu min nuuri wa shuhadaa wa suadaa wa saalihiina min nataa'iji nuuri tabaarakallahu leer googule lépp ci xaqiqatul muhammadiya lépp nag yàlla nga ko nëbboon fekk na amoon na comme li ma la wax ku xamul xar mosoo kaa gis mosoo gis yàpp bi maanaa sunna la ci biir xar la làqoon doo ko mën a gëm kon lépp nag noonu la làqoo ci biir xaqiqatul muhammadiya yàlla jël leer googu nag saxal ko ci maqamatul ubudiya ci xijaab bu ñuy wax karaama ak texe ak yërmande ak ñeewant ak am ak xam-xam ak wegeel ak dal ak muñ ah ak dëggu ak wóolu yàlla ci la ko toggalee nag ba mu ñëw ci nii mu ñëwee nit ñi mën ci teg ba ndax euh, li ñuy wax liñ naan man mbar taxaw jotul sax <laughs> daan gars yi daañu ma ndax maa ne benn bayit boobu naaje ce que taxaw sax man liñ naan awalul fikri aakirul amal mais aakirul amal itam awalul fikri xam nga kër soo ko bëggee defar doo jekki-jekki jëmmal ko dangaa ngaa woowee entrepreneur wala eh, maanaam du entrepreneur maanaam ñi nga xam ne ñooy ñooy liggéey plan yi kooku plan bi du jekki-jekki jëmmal ko ciw kayit da ngay xalaat ne nii la war demee soo ko xalaatee ba pare jëmmal ko ciw kayit jox entrepreneur entrepreneur jëmmal ko kon boo xoolee ah njëlbeenu xalaat mooy mujjug jëf waaye mujjug jëf itam mooy njëlbeenu xalaat tabaarakallaahu noonu lay sottee eh, kon loolee la Seydil Hadj Malick di jàngal ci wa innahu id arada allahu nashatana abana min nuurihi nuur nabil alami eh, suñ doy la woon loolu mu doy waaye ñëw moo tax ndax moo tax moo tax Cheikhul Hadj Malick ne la inna al awalima wér ne na monde yëpp yëpp yëpp yëpp aliha yi féete kaw yëpp yëpp laa wax wa saafilaha ak yi dawlu féete suuf yëpp yiñ xam ak yiñ xamul ashiatun ay ceeneer lañu yoo xam ne talaat yooyu fenkee nañu min afdali na si bàyyikoo ci gën ji mbindeef mooy yooyu yëpp ñu ngi bàyyikoo ci leeru yenent bi lañ leen bindee te jàngoon nga ko démb waxoon nañ la ko démb ci hadisi jaabir bu gudd boobu le mm-hmm. mu ne xam nga dañuy dañuy war bàyyi xel ne euh, toujours ñu war a bàyyi xel ne ñetti kuntu moo nekk moo fi nekk ñett ñetti kuntu lañu gis mun ngaa wax na nag beneen bu bàyyi ko ci boobu la bàyyi ko benn bi yàllaa ko wax te bam ne kuntu kanzan lam uraf fa ahbabtu an uraf fa xalaxtu xalqan fa bii arrifuni te la ci gën fa bii boo ko mooy rasulillahi sallallahu alayhi Hmm? rasulullahi ne kuntu nabiyan mursala aaliman bi risalati bu boobaa fekk aadamu baynal maa i wa tiini cheikh sidi ahmad tidiane ne kuntu aarifan bi wilayati wa aadamu baynal maa i wa tiini sëriñ babacar si ne ko dëgg la xutbul wujudi ladi abda wilayatuhu rabbi wa aadamu baynal maa i wa tiini hmm. moo tax benn waykat daal leen di feelu fële na maali fil kawni si war rahmaani wal mustafa wa ahmad tijjaani ma ngoog nii rek la te nag foog nga bàyyi xel na la euh, borom tiir ba waxoon ne awalul fikri aakirul amal mais aakirul amal itam awalul fikri loolu mooy lan tey say ah boo bëggoon a defar bâtiment foog ab ingénieur ñëw liggéey carte bi carte bi nag bala mu kaa liggéey wala plan bi foog da koy togg ci xelam ba pare kon da koy xalaat ba pare bu ko xalaatee jëmal ko ci kayit gi jël loola jox entrepreneur bi noonu la demee kon yeneen bi yàgg nañ ko fee bind mu nekk fi di leer waaye nekk gu doon jëmm ju ñuy jëmmal loolu bëgg a wax foofu wa aalama allahu haadina nubuwatahu wa kaana aadamu bayna nafsi wa nasami wa aalama xamal na yëgal na déclara déclaré na ñu ne ko si ku déclaré mu ne allahu yàlla sunu borom subhanahu wa taala kalla déclaré mu ne haadina aji gindi suñu mooy rasulillahi si lu mu ko déclaré mu ne nubuwatuhu ak nubuwaam xamal ko ne kat yow kat ku ñu soloo nga ku ñu yëkkati nga ba nga tiim ñëpp nga nekk booba ban jamono ndax xam nga ko góor gi ne yàgg na wakaana nekkoon na booba la jamono ñu koy xamal ne yaa yenent yenent yi de aadamu yént yàlla aadamu bayna nafsi ci diggante tabax jëmm wan nasami ak ruux booba mi ngi nekk ci diggante tabax jëmm ak ruux ci la ko yàlla xamalee woon loola soo bàyyee xel nag ci wa innahu id araada allahu nashatana abana min nuurihi nuura nabil alami xam nga boo bàyyee foofu da gis ne way woowu waaw moo jiitu mim moo fa mujj soo ko boolee laa jox 46 foofu la duggee ci rasulullah commencé cee wax gannaaw ba mu salaatoo ba pare waaye boo xoolee itam ba muy jeexal téere bi fa mu waxee fañ dencee rasulullahi ba pare ak ka fa mujj mooy wabnul xamaamati rasal qabra yabda u min wijahati rasi summa al qalbu zu darami foofu it boo xoolee waaw moo fa jiitu mim moo fa mujj soo ko boolee da soo ko jox jile da lay jox 46 46 plus 46 mooy 92 mooy muhammadu ma ngoog kon ci diggante boobu la tëxëñ daxëñ rasulullahi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne uyunul larwaaxi min nuurin hudan bajasat fa innahu jinsul aala maa dinu sutumi dangaa wax ne uyunul larwaaxi mooy ruuxu ambiya yi ak mursalina yi ñoom ñëpp in bajasat balle nañu bàyyikoo nañu min nuuril huda ci leeru aji jub ji mooy leeru rasulullahi waaye itam bàyyil xel ne ana min nuurillahi wal wujudu kulluhum min nuuri foofu ku baax ak ku safaanu yëpp ñoo fa ne bàyyil xel nag qul illahuma malikal mulki tuutil mulka man tashaawu wa tanzi'ul mulka man tashaawu dafa dem bay jeexal na bi yadikal xayr waa leneen nag fu nekk ci loxol ku mu ne ci loxol yàlla waaye waxu kilifa kenn du ci ñoox musiba noonu rek la kon in bajasat balle nañu bàyyikoo nañu min nuuril huda ci leeru aji jub ji moo leeru yenant bi fa innahu naka yenant boobu nga xam ne ñëpp mi ngi bàyyikoo ci moom al jins mooy xeet ba al ala bay aji kawe tim ñëpp maa dins mooy mbelli cosaan yi maanaa cosaan yëpp mooy seen cosaan tabarakallahu ñëpp ñi ngi bàyyikoo ci moom ana min nuurillahi wal wujudu kulluhum min nuuri ñi ngi tolloon ak Cheikhul Haaj Malik Si radiyallahu taala anhu ci yàlla amal gi mu amal bindeef yi jëlee ko ci leeram gi nga xam ne nangu na teqalikoo ak loolu ñu ngi ci junj ci ay leeral te boo demee ci téere bu ñuy wax munaajatul kubra wala tafsir ruuxul bayaan ya xam danga fa fekk yént yàlla musa sampab laaj di laaj sunu borom subhanahu wa taala naka nga mën a bindee ci sa bopp leeru sayduna muhammad te yow manqué woo borom téere yooyu dañu wax ne yàlla dafa wax yent yàlla Moussa utal fukki sondeel ak benn yent yàlla Moussa ut fukki sondeel ak benn mu ne ko taalal benn bi mu jël almet wala taaleekaay bu mu ko mën di taale taal ko ba mu ko taale pare mu ne ko fukki yu des taal ko ci bu njëkk bi yeneen fukki yu des mu taalee ko ci sondel bu njëkk mu ne ko wa dama lay laaj leeru sondeel bu njëkk bi bañ ci taalee sondeel yéene lan la wàññi ci leeram gi yént yàlla Moussa ne dara ne nii rek la nag loolu yow mën naa dégg carte mémoire da ngay jël copier cassette da jël copier téere bi da ngay jël copier ah tabarakallahu yooyu yëpp jamono wane na ko léegi euh, kon nekk foofu di gudal mbayam noor moom matatu ko Seydul Xaaji Maalik nag continuer wax ak ñun wane nañu adduna bi yëpp te démb waxoon naa la ko lu dul yàlla rek ci monde bi nga bokk mu ne inna al awalima aaliha wa saafilaha ashiatun talaat min afdali nasami monde yi nag boroom xam yi am am nañ ci wuute ñii ne ñaar fukk ak ñenent la ñii ne ñeen fukki junni la ñenn ñi ne wa maa yaalamu junuuda rabbika illa hu ñenn ñi ne déedéet cent vingt quatre mille monde moo am waaye Cheikhul Haaj Maalik Si radiyallahu taala anhu daan wax ne lim moom buñ ci wuutee ci côté njàngale jëlal lim ba gën a bëri walis ngay jël lim bi gën a tuuti kon cent vingt quatre yi te bii diggante asamaan ak suuf yi benn monde la ci ñi wax na ñaar fukk ak ñeent nag dañuy jàpp ne laa ilaha illallah mooy dawal benn douze heures de temps bi beneen laa ilaha illallah bi xam muhammad rasulullah di dawal beneen douze heures de temps bi ñoom noonu lañ ko jàppee waaye monde bi daal mooy lu dul yàlla rek ci monde bi nga bokk aw kay gaas yeeg yére yeeg nit ñeeg tool yeeg jinax yeeg bukki yeeg xar yëpp ci monde bi lañu <laughs> ci monde bi la ñu bokk waaye xam nga doomu aadama toujours dañ lay wax ne la sunu borom daf ne la xad xalax na linsaana fi ahsani taqwim ngir lan ngir yàlla taxañ gi mu taxañ adduna yëpp ci doomu aadama tafakkaru fil xalqi wala tafakkaru fil xaaliqi lu tax ngir taxañ koo xam ne taxañ na léppi monde bi ci biir doomu aadama doonte jëmm ji nag boo ko xoolee nekk na jëmm ju tuutee la nga déggoon ibnul farid doon wax naan la in kaana jarmuka jarman wala jurman sagira fa fii kan tawal aalamu lakbaru fala minka illa gada biha yuzanul kawnu bal aksaru hmm? dem ba naan la antal wujudu wa kullul wujudi wa ma fika mawjunu la yanxasiru tabarakallahu kookulee kon bu fekkee teg nga nit xam ko da nga gis ne sunu borom léppi aduna daf ko dajale ci jëmmi nit lépp looy gis ci àdduna rek tabaarakallaa boo xoolee ci nit rek daa ko ci gis mu jël bopp bi def ko mu mel ni fëlak ak room ak wëndeelu waaye ak la cay bàyyi ko ci leer jël juróom-ñaari yaxi doomu aadama def ko mu nekk mel ni fan bi jël noppam yi mu def ko mu mel ni penku ak sow jël cër yi juróom-ñaari cër muy juróom-ñaari biddiw ci yaxu ginnaaw gi am na ci ñaar fukki yax ak ñeneent yoo xam ne mooy tell ak 24 heures ci sofe-sofeem yooyu am na ci façon sofe-sofe yoo xam ne soo leen calculé ñaar fukk la ak juróom-ñett mooy tolloog manazil ci biiram bi itam def na ci ay xeeti mbàq yoo xam ne mooy tolloog fani terute yi ñaqam woowu di yëngatu wala siditam yooyu di yëngatu ak yay dal dafay tolloog limu at mi kanam gi di la jox bëccëg gannaaw gi di la jox guddi taba yi nga xam ne moom la am di nature yi nga xam ne moom la am day tolloog fusul sana yi maanaa période yi ñeenti période yi ah boo ko toppee boo ko toppee boo ko toppee bala ñuy tardé foofu ñu firiwaat bayit bi ndax dañuy bañ a saaraan ci ci des bala mu ñuy tardeel war a commencé tey ci waxalqul axlaaqi baadul ambiya muqaddimatun li zuhurihi waaye xalqul axlaaqi itam muqaddimatun li zuhurihi faalam ne xalqul axlaaqi muqaddimatun li zuhurihi wala tanmina baadul ambiya muqaddimatun li zuhurihi ma ngoog Seydul Xaaji Malik nee na yàlla bind gi bind mbindeef yi amal leen ñu feeñ nii nga leen di gis kooku day délégué day déclaré ne rasulullaa nga ci yoon wi mi ngi bëgg feeñ yónni gi ñu yónni yonent yi gannaaw bañ leen amalee ñu nekk ay jëmm ñu bàyyi ko ci leer rasulullah sallallahu alayhi wasallam kooku day wane ne yonent bi léegi jamonom jot góor gi nag ne loolu yëpp na nga ko xam ci misaal nag suñ la misaal ki ñu wax ne mooy son excellence nga xam nee ñu moo jiite Sénégal bu doon dem fenn ci benn raison tertu bañ ko fay defal ñaare bala moo ñëw li nga xam ne mooy maire yi daañu ñëw jiituwaale ko li nga xam ne mooy sous préfet yeek préfet yi daañu ñëw li nga xam ne mooy député yi daañu ñëw li nga xam ne mooy président assemblée dana ñëw ba pare nag mu door di ñëw ñoom ñëpp seen ak ñëw ak mataar yeeg yëngatu yëpp day tegtal ne son excellence mi ngi ci yoon wi waaw kay noonee la demee woon ci diggante rasulullahi ak sallallahu alayhi kon dañuy wax ne toujours yenent yi moom yenent yi bi la ñu waaw kay moo tax góor gi ne wax xalqul axlaaqi bind gi yàlla bind mbindéef yi amal leen ñu feeñ nekk ay jëmmu muqaddimatun lu ñu jiital lu ñu yabal la wala aji jiitu la li zuhurihi ngir nam ma feeñug rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaye baasul ambiya yónni gi yàlla yónni yonent yi ñi nekkaale ci xeet wi di leen waxaale mission yi muqaddimatun aji jiitu la li zuhurihi ngir nam ma feeñug rasulillahi ngir nam mag ñëwam mhm. Cheikhul Haaj Malik ne la faalam xamal ne bind gi yàlla bind mi def yi muqaddimatun li zuhurihi wala tamit bul sàggane sàggan ba ba ba sàggane xam ñàkk xam itam ne baadul ambiya muqaddimatun li zuhurihi loolu noonu la nga nekk waaw rasulullah ni lañ koy njëkk bindee ba pare moom mu mujj fee mu ne fi aalamil mulki wal arwaaxu taabiatun li ruuxi wal jismi hada gaayatul karami de waaye boo xoolee li ruuxi foofu ak wal jismi tabaarakallaahu liif ak laamam yooyu ci ñuuxu moo remplacé damir ji kon ca jeexantalu baat ba ndax xam nga baat bu amee liif ak laam du jëriñ wax damir léeg-léeg nag nga dégg nit ñi moom ñoo xam ne bu ñu ñaan da ngay dégg ñaan inna allaahu wal malaikatuhu wa malaikatuhu wala wa malaikatahu wal malaikatahu def ci liif ak laam ba pare ñoddi ci dóor ci damir waaye yooyu yëpp xam nga la yàlla xam doy daal ma ngoog ay ko comme maa ngi ñoom a yam la yàlla xam dafa daal doy mulku mooy lépp loo ne sa bët bi mën na ci tegewu mbaa sa loxo bi mën ka laal mbaa sa tànk mu a dox ba àgg ca maanaa yàlla ba mu dajalee arwaax yépp ci ndiggal maam aadama ca batn waadi Nu'maan ca makkatal mukarrama la barab boobu nekk kon loolu fu loolu barab boobu lu bët mën a gis la ma ngoog moo tax mu ne wa kaana muxtajiban min qablu fi xujubin yusabbihu llaha fiha gayra muttasimi danga wax ne loolu moo indi woon gis rasulullahi toog ak jibril ba mu yàgg ñuy waxtaan rasulullahi posé ko question ne ko mag yow ku mag jibril naka ah hmm, génération yu bëri fekk nañ ma fi bàyyi ma fi de yàgg dinaa fi de man de atam yekk dëpp yekk dëpp daal boo mag ñu gone lañu rasulullahi ne luy sa preuve ci ne mag nga mu ne ko pour samay preuve daal ci takk-takk am na benn bidiw bu daan fenk fii tiim kaaba gi bidiw bu fenk na juróom ñaar fukki junni yoon te su fenkee dana suux juróom ñaar fukki junni at ak benn dana suux juróom ñaar fukki at junni at ak benn te su te fekk na ma fi juróom ñaar fukki junni yoon ak ñett rasulullahi na ana dalika al kawkab jibril yàgg na fi de dana bu fenkee bala moo suux dana am juróom ñaar fukki junni at su suuxee bala moo fenkaat dana am juróom ñaar fukki junni at ak benn jibril ne ma fekk na ma fi nag juróom-ñaar fukki junni yoon ak ñett rasulullahi nag ana zalikal kawkab man maay boobale bidiw kenn musul dégg li moo tax mu yàgg fi lool waaye nag nekkoon ci kiiraay yooya doon delloo boromam njukkal doon ko jaamu-jaamu yoo xam ne yu yéeme yéeme la ngir sunu borom tedd nga yim ko defal ak xeeti mbaax mbaax yim ko defal pour sante ko ko wa kaana muxtajiban min qablu fii xujubin yusabilaa fi gayri mutasimi muxtajiban di aji yiiru mooy di aji làqu ci ay kiiraay yooyu comme noonu ma la waxee woon dégg ko bu baax min qablu la jiitu muy feeñ feeñu jëmm fii ci kaw suuf nekkoon na nag fii xujibin ci ay kiiraay yoo xam ne ay baaraas yoo xam ne kiiraay ya di kiiraay yu miir du sàkket du matière waaye kiiraay ya leer la lu mu fa doon def si xam nga ko mu ne waawaaw yu sabbixu daana sabbaal daana sellal daana bàkk allaha yàlla fiiha ca biir kiraa yooyu xayra muttasimi te mbir moom nekkutoon aji tayal waaw nekkutoon koo xam daal dafay dem ba mu yàgg rek mu tayal a ah, déedéet moom daf ca continué woon rek def rek jàpp rek tëbaay yi ndax léeg-léeg nga gis koo xam ne buy jaamu yàlla ci biir yàlla ma yàlla day dem ba ci biir yokkat ci biir jaamu yàlla ga mbaamu tayal mbaamu sonn bàyyi jéem a def leen waaye rasulullah loolu amu ci nag kullu xijaabin aqaama albadru min xuqubin fiihi li taati mawlaana bila saami cheikhul haaj malik nee kullu xijaabin bépp kiiraay ci kiiraay yooyu ñoo bëgg a wax aqaama sax loose na fa ñu ne fa loose ku fa sax mu albadru rasulullahi toujours nag badr bu la ko waxee ba téere bi jeex te namu ci Mustafa dana badal turu comme ci nam mu jeex waaye sax waa koy jóg partout fi mu ñëw dégg nga min okku bin ci ay jamono sax na ko fa ay jamono yu yàgg-yàgg doon fa jaamu yàlla nga ne si lu mu fa doon def mu ne sax na fii ci kiiraay yooyu li taati mawlaana ngir topp suñu borom bi nga xam ne mooy aji méngooñu topp goo xam ne nag bilaa sa ami amul genn ak yokkat amul genn ak tayal amul dem ba mu wala mu mel ni koo xam ne daal amatul courage ci mbir mi muy def góor gi ne la nag soo ma dégloo kiiraay bu ci ne am na lam fa doon wax lépp incha allahu dinaa la ko bëccëgal ba mu bëccëg wa kullu haa haada tasbihan yaqussu bihi aati bi tartibiha fi xusni muntazami nee wa kullu haa bu mu ci kiiraay yooyu may wax du fukki kiiraay yooyu ak ñaar xaada làq na moom kiiraay ba jagoo na moom kiiraay ba féetewoon moom kiiraay ba tasbiir ak sa sabal goo xam ne yaqussu dana jagoo moom sa sabal googu bii ci kiiraay ba da nga gis kiiraay boo xam kiiraay bu ci ne tudd ak moromam bokkul la muy tudd ci kiiraay booba mu ne moo tax mu ne yaqussu na jagoo bii ca kiiraay boobu walla ca waaw ca kiiraay booba nga ne si am téere yombuma bay xam kiiraay ya am téere yombuma bay xam lu ñu fa doon wax lan laag naka laag nu ko fa waxee wala su ma ko amee su ma ko liire dégg gi yombuma ma xam gi yombuma walla wala su ma ko dee xam it am temps yomb mun a déet kon aati dinaa indi bi tartibiha ci seen a toftale moom kiiraay yi benn par benn ma defee ko nag fii xosni muntasami mu nekk ci rafet gën jaa rafeti lu nu way lu ñu nosani ci ay way tabarakallahu kon barab boobu lu bët mën a gis la bam leen sajale ñu nekk ci mu zar yëngal ndiggal maam Adama ne alastu bi rabbikum kenn wuyuwul rasulullahi moo njëkk a wax balaa aha kay mursala yi nay topp ci ambiyaa yu topp ci saalixiina yeeg mu'min yëpp topp ci nag waaw kay balaa googu ñu waxoon foofu nag dañu continuer di sàmmonteeg moom ba ba ñu ñëwee fii fàttewuñ balaa googa fàttewuñ balaa googa waaw kay euh, ba ñu ñëwee fii fàttewuñ balaa googa mooy inna alladina xaalu rabbuna allahu ca kaw su mastaqaamu gis nga suma gim fi doxalee te loolu gaa yi jàng loolu xam nañ li may wax ndax wal faa u li wa summa li tartib kon nga xam ne am na tuuti différence maanaam tuuti distance daal bi maanaam laa bëgg a wax am tuuti distance boo xam ne moo am ci diggante boobu le waxoon nañ ko fële ci kaw ba ñëwaatee fii ñu ne bala wa awalu man labba alastu bi rabbikum huwa ruuhu wa rahmaanu kaana munaajiya loolu sëriñ yi mag ñi wax waaye keroog daal lu ruuhu rasulullahi moo njëkk a ëyyu ruu guy wuyu door ci topp képp koo xam ne nag ku demee ni sahlu abdullah asusari moom booy xool daf lay wax ne moo xam ci jëlaale ni nga dem walla ci lifaadatu al ahmadiya yaakaar naa ñaari ciiru yàlla dafa mel ni Moussa ko ci bàyyi xel muy wax ne bépp sëriñ boo xam ne keroog ba yàlla ne alastu bi rabbikum xàmmewoo sa ay taalibe foofa commencé di leen yar foofa ci aalamu zarra soo dikkee fii dégg nga maam waruloo am ay taalibe ndax fa la ñoo di jëme te di woo ko te it képp koo fa gis ñu ko ñu koy topp fii ci aalamu shahada bi ci mu euh, ci aalamu shahada bi dañu kaa toppoon démb moo xam nit ak adduna am na ñu ko fa toppoon wala nit ak diine la am na ñu ko fa toppoon kon topp bi moom démb la kon képp koo gis mu bàyyi ba ñëw fii door di lijjanti ay taalibe di def ay pexeek ay campagne lu mu dugg ci pour ami taalibe wala am mbooloo tardé na démb la woon bu fekkoon ne borom yëf yi la nit ñee ko naan yow la moom du naan kaay leen de nit ñi naan kaay la waaw saa mu naan kaay na waaye nag tabaarakallah yàlla xam doy na dañu toll jamonoy woote. dangaa wax ne wal arwaaxu ruu yëpp taabiatun way topp li ruuxi ñeel ruuxu sallallahu alayhi wa sallam nga ne ko si fan lañ ko toppee mu ne fi aalamin mulki ci aalamul mulk muy benn waaye wal jismi itam bu def wal ajisaam wal jism wal ajisaamu itam jëmmu yëpp itam taabiatun way topp lañ li jismihi waaye mu dagg loolu yëpp mu ne wal jismi ak jëmmam jë jëmmu yëpp topp nañ ko ci aalamul ajisaam ñu ne ko si fan lañ ko toppee mu ne ci aalamul ajsaam nañ ko toppee woon ci aalamul larwaax noonu lañu ko toppee ci aalamul ajsaam hada sa jëmm jëmm yëpp topp ko ci aalamul larwaax ci démb hada sa jëmm sa ru xaw ma hada sa ruru yëpp nangu leen ko démb ba dara xewagul hada sa jëmmu jëmm yëpp nangul ko ba nga ñëwee fii toppaat ci gannaawam comme nañ toppee woon démb feddliwaat woote bi dëgg-dëgg nag xaayatul karim mooy day daytalu tiraanga xaaj maa li nee tiraanga mënul romb loolu nag xam nga sallallahu alayhi wa sallam ba ko yàlla bindee noonu nag mu nekk ak leer ba ko yàlla bindee noonu mu nekk ak leer sunu boroom dafa waxanteeg moom ba lépp loo xam ne nekk na ak luy nekk rek dafa waxanteeg moom leer ga it tontanteeg moom ci gàttal dalu naka ayyuha nuuru kun abdi muhammada wa bi mahabbati mu mumajjada rak fa labbaahu bi sama wa taa leer gi bam mu ne yow sama leer gi dama bëgg nga nekk sama jam boobu ñoo wax sayduna muhammad nekk sama soppe boo xam ne li ma la jagleel ci cofeel ak ak tëdd nga ak màgg nga amul kenn kenn koo xam ne am na ko ci bindeef yi leer gi daal di wuyu sunu borom subhanahu wa taala continue nag di jaamu yàlla jaamu yàlla goo xam ne jaamu yàlla guy yéeme yéeme la ci jaamu yàlla yooyu nag ku mu raw ku ne tabarakallahu sallallahu alayhi wasallam ci la la rawee woon ci lépp matee moom nga déggoon Cheikh Ahmad Sukayri naan xujubun takaamala xadruha lawla sana min nuurihi laaral wada laaral wada laaral waral iddi mihlaalu nee na ay kiiraaya ngi nii ñuy bëgg a wax ci la darajee rasulullahi matee bu dutoon leer goo xam ne moo bàyyi ko ci leeru rasulullahi gi dox digganteem ak bindeef yi ak yàlla kon nit ñi naax saay nañu fa tajammaat fi ruuxihi anwaaruha wa bi nuurihi kat xaffaha ijlaalu nee na yàlla dajal ne ci ruuxu rasulullahi mboolem xeeti leer yi ci leeram googu nag moo mër leer yi mooy nuru axaata bi lan waaru xaajibatan anil xaqiqati ku xalqi yàllaahu mu jeex loole la Seexul Xaaj Maalik dina te léeg ñun nga ko de nga ne ko fii kon kiiraay yi soxla woon naa ko mu wax la loolu mu la wax kiiraay yi nag fukki kiiraay la ak ñaar kiiraay bu njëkk bi def na fukki junni ak ñaar douze mille la rasulullahi def na ko foofa waaye nag xam nga sànq neen la wa kulluha xaada tasbiyan yaqusu bihi benn bu ne am na sabbal goo xam ne kiiraay ba jagloo na ko ci benn xeetu sabal boo xam ne moom dong dong dong moo ko féetewoo woon te mooy kiiraay bu njëkk ma ngi fa doon wax lan subhaana rabbiyal aala di ka fa wax di ka fa wax ba ci kiiraay boobu ci la ko yàlla làmbale mboolem luy xeetu ngëneel ne moom daal annahu li makrumatin ahlun ba moom daal wane lépp lu ñu ko terelee rek ku ko yelloo moo tax waykat ba ne rasulullahi azzamahul ilahu wa awjada minhu saaira ma baraahu ma ngoog nee na yonent yàlla bi daal yàllaa ko boppam teddal ko jox ko mboolem li nekk ci mbindeef yëpp mu dajale ko ci moom tabaarakallaahu te li nekk ci moom yëpp nekkul ci mbindeef yi hmm? anta aslul wujudi fal kawnu min farshi ila al arshi min kama azkaaka lawlaa jaahuka lam yakun lahu kawnun wala aadan wala daaman idaamuhu lawlaa ka kon nga gis ne moom mooy affaire bi kon kiiraay bu njëkk boobu loolu la doon wax moo tax góor gi dafa qudratun minnatun min qabliha idamun wa rahmatun wa saadatun li musalimi kon kiiraayu qudra mooy kattan nekk na fa di wax subhaana rabbiyal aala ba mu ca jugee minnatu nekk na ci kiiraayu minna waaye danga ngay firi min qabliha jiitu na minna boobu izaman kiiraayu màgg al azamatu kiiraayu màgg foofu am na fa fukki junniy ak benn lan la fa doon sikar subhaana aalimi sirril xafi la fa doon wax di ko fa wax di ko fa wax ba mboolem loo xam ne ay xeeti sekkare la nga xam ne kenn kenn xamu ko kudul borom bi lu ci bëree bëree bëri yàlla xamal na rasulaay te man nga ko xamalee ca kiiraay booba moom nga dégg seex sukayri ji naan wabil fatxi laduni xatta jallaaluhu fi xadratin fiha safaaw lahun kasafat xaqiqatu kulli sirrin walam yudrik xaqiqatuhu siwaahu <laughs> nee na yàlla defal na ko ci kiiraay boobu façon fatxu boo xam ne moom dong kott kese rek moo ko jagoo subhaana alimi siril xafi ci azama góor gi ne min qabliha minnatun kiiraayu minna mooy kiiraayu xéewal sax na fa fukki junni at moom rasulullahi nga nekk si lu mu fa doon sikkar mu ne subhaana rafiil aala loolu la fa doon wax ci la ko yàlla xiiwale mboolem xeeti xiiwal yoo xam ne yu nëbbu yi ak yu feeñ moom la ko fa yàlla jox mu ko fa yox ba mat fukki yi at kiiraay bu ci nag lu tax su demee muy gën a wàcc dañu wax ne ne euh, kiiraay bu ci ne bu demee mu gën a wàcc manaam du fay gën a yàgg la ko waral mooy su keree turu yàlla bu njëkk bi ci kiiraay bu njëkk bi ba mu tojee bu ñëwee ci kiiraayu ñaar bi da a fay dóor su ko fa dóoree yëf yi yeex a yëngu mu dóor ko beneen turu yàlla woo xam ne kiiraay bu musukaa dégg neexaayu turu yàlla woowu mooy jàpp kiiraay ba mu na tajax toj te benn marto wala ñetti marto nga koy dóoree miir mooy gën a gaaw nga koy dóoree benn ba mu ci jugee wa raxmatun ak kiiraay yu yërmaande am na fa juróom-ñeenti junni at foofu it dem dafa doon sikkar mooy subhaana raufir rahim subhaana raufir rahim di ko fa wax di ko fa wax di ko fa ba tabaarakallaahu ci la nekkee ayni rahmati rabbaniya fa ayqana lahu xayrul baraya wa anna allaha qad ala ulaahu hmm. loolu la Seex Sukayri ji wax na wér rasulullahi mooy gën ji mbindéef yàlla ci boppam moo ko kawel mu nekk jëmmi yërmande te man ka dagbe ci kiiraay boobu wa saadatun ak kiiraayu texe foofu itam am na fa juróom benn junniy at foofu doon na fa subhaana man huwa daimun laa yazuul wala laa yazuul subhaana man huwa daimun laa yazuul di ko fa wax di ko fa wax ba mag juróom-benn junni at ci foofu nag ci la yàlla joxe xeetu tedd nga ak xeeti yu woo xam ne mësul dañ di nekk ci loxal kenn wa ayqana annahu lil xayri baabun wa anna al xayra ma basalat yadaahu nee na wér na ne daal rasulullahi wér na mooy bunti yiw loxoom nag li muy joxe ci yiw ak tiraanga ci wàllu yàlla ci waxeeti may amul benn loxo buy joxe lu ni tollu kon saadatul li musalimi ñeel képp koo xam ne danga ngaa womatu yaakaar naa war nañ mën taxaw noonu de ñu ngi jéggalu salaamaaleykum wa rahmatullah